على من علي ولا سوسدي لو كل من هدايا مدي على من علي ولا سوسدي لو كل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 سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki jullit yi ginnaaw bi nu musloo ci noon bu mag boobu la laanatullahi alayhi sant sunu borom subhaanahu taala mi nu gindi ci yoonu siraatal mustaqim di julli di sëmmal sang bi ndeefi alayhi salaatu wasalaam leen di nuyu nuyu ba gën a rafetali nuyu jullit te moo di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu rafet lu lool bàyyi xel gii ngeen di bàyyi xel seen jotaay bii di xam sa diine fii ci ëttu soxna yu baax yi ñu ànd ci seen mbokku jullit seen mbokku taalibe Seyda Soxna Diarra Ly di leen nuyu di leen ziar bu baax ci tey rafetlu bàyyi xel gii ngeen di bàyyi xel seen jotaay bii di xam sa diine. ginnaaw bi ñu yeen ci jotaay bi weesu ci li nga xamanteni ni mooy ponki ngëm yi yi nga xam ne bu ne war na koo ràññee war koo xàmme ginnaw bi mu gënee ñaari baati seere yi ba noppi wéetal borom wéetal gu sëkk xam melo yi nga xamante ni mooy melo sunu borom subhanahu wa taala waaye itam mu xàmmee melo yi nga xam ne na sunu borom subhanahu wa taala di ko melowoo tey ñu fas yéenee ànd ak yéen ci li nga xamante ni mooy al imaanu bil malaika te moo di ngëm yonente yi ginnaaw bi nga gëmee sa borom wéetal ko daa gëm bokk na ci itam ci ponki ngëm yi gëm malaayika yi gëm malaayika nag tey jii moom lañ leen di indil te moo di gëm malaayika yi ne ci bu wér dëggal sa xol ci bu wér ne kat yi ay mbindeef lañ yoo xam ne seen borom subhanahu wa moo leen sàkk waaye itam moo leen bind moo leen amal ñu nekk jaami suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala na leen ci bàkkaar kon ñoom malaayka yi ay mbindeef lañ waaye ay jaami suñu borom lañ waaye itam suñu borom subhanahu wa moo leen sàkk moo leen bind waaye itam ñu ñu musal lañ ci ay bàkkaar ba duñu tooñ suñu boroom malaayka yi itam duñ ay góor waaye itam duñ ay jigéen kon ay mbindeef lañ yoo xam ne rek yàlla leen sàkk yoo xam ne jaami suñu boroom lañ te itam ñu nekk mu def yo ne duñu moy sunu borom duñu toy suñu borom kenn ku nekk ci malaika yi rek ba bala sunu borom saké ba tay cale la sunu borom sant rek ci nga nekk malaika yi tam nekk ay ay jaam yalla yo xam duñu dem toilette waye itam ñu nekk ay jaam yalla yo xam duñu gaanu way manam duñu tour ndox ñom da ay mindeef yalla yu sak lañ yo xam ñu sel lañ ñu lap lañ ñu nekk ñu sell ñu laab ñoo xam ne dañu dem toilette duñu tuur ndox nekkuñu ay góor nekkuñ ay jigéen waaye ay jaami yàlla lañ yoo xam ne yàlla moo leen teral te kenn ku nekk ci ñoom musoo mooy sunu borom subhanahu wa taala loolu jullit bi da ko war a xam te it da ko war a gëm te itam sunu borom subhanahu wa mi nga xam ne mooy boroom mbindeef yi bind lépp sàkk lépp moo bind malaayka yi waaye ci lan la leen bind ci leer leen bind ci leer waaye itam ñu nekk malaayka yoo xam ne dañoo wuute ay melo kenn ku nekk nuroo ak sa moroom melo kon malaayka yi ci leer lañ leen bind waaye kenn nuroowu ci sa moroom waaye malaayka itam lan mooy seen lekk mooy sellal sunu boroom mooy seen lekk sellal seen boroom bañ leen bindee ba tey mosuñoo tuur ndox mosuñoo kabine te lan mooy seen lekk mooy sellal sunu borom subhanahu wa taala lan mooy seen naan nag takkoog di sàbbal sunu borom subhanahu wa taala kon taamuhum taqdiisu sharaabuhum tasbih kon seen seen lekk seen seen lekk mooy lan sellal sunu borom waaye seen naan itam ba tey mooy lan ta takkoog di sàbbal sunu borom subhanahu wa taala malaayka yi seenu seenub lim sunu borom rek ko xam waye itam amna ci fukk yo xamanteni ni ràññeeku nañ moy ñi nga xamne julli bu ne war na leena xamé ragne leen ndax ñoñu moy ñi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala leen tan ci biir malaayka yi am mu leen jagleel fukk yooyu nak ñan lañ muy sayyidina jibril ak sayyidina mikail ak sayyidina israfil ak sayyidina azrail ak sayyidina ak malik ak ridwan ak raqib ak atit ak munkar ak nakir kon ñooñu mooy ñi nga fukk yi nga xamanteni ni jullit bi warna rañe ràññee ñooñu le jibril nak lan la ko sunu borom subhanahu wa taala jeglel njubuk sunu borom subhanahu wa taala mi nga xamne mi ngi koy wacce ci yonente yi wala wax yo mi nga xamne mi ngi koy wacce ci yonente yi wala njub yi nga xamne mi ngi koy wacce ci yenn lenn ci gaayam yu bax yoyu le ngir ñu jottali ko jaam yi jibril lako ko kon lepp bepp wax yu muy wacce ci yonenti yi rek wala bepp bepp njub bo xamanteni ni mu ngi koy jax gayam yu ye ci gayam yu bax yi ngir ñu ku ci minde fi Seydina Jibril la ko jagleel Mikaayil itam moy ki nga xamanteni ni mom la sunu borom subhanahu wa taala jagleel wërsëgi doomi adamay ak taw taw bi kon ci mom la ko sunu borom subhanahu wa taala di jaarale taw bi ak wërsëgi jaam yi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi koy jaarale ci mikael raqib ak atib atib moy ñi nga xamne ñoy bind jëfi jaam yi xam lu baax la mo xam safan ba raqib ak atib moy ñi nga xamne la sunu borom subhanahu wa taala jagleel lolu le ñi bind jëfi jaam israfil itam moy ki nga ni bu aduna ñepp faato moy wul buftu bi bu buftu bi rek aduna daali dootut am boo defee mom sunu borom subhanahu taala daali koy faat bu ëllëgee yowmal qiyam itam bañ wara dékki mom la sunu borom subhanahu taala di dékkel mu ëfaat buftu bi ñépp daali gennat ci seen bàmmeel daal di dekki israfil mom loolu la ko sunu borom subhanahu taala jagleel ki nga xamante ne nii nag moom la suñu borom subhaanahu wa taala di yónni ngir mu rocci ruux ñi war a faatu ñi jaami jaami yàlla yi nga xam ne dañoo war a faatu seen ruux ki nga xam ne moo koy rocci ki nga xam ne moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala mooy Azraayil kon Azraayil mooy rocci ruuxu jaam yi ki ku ci war a faatu rek sunu borom subhaanahu wa taala Azraayil la yebal ngir mu rocci sa ruux Munkar ak Nakiir itam ñoom la suñu borom subhaanahu wa jagleel ki nga xam ne dafa faatu ba ñu dugal ko ci bàmmeelam moom moom ñoo koy fekk ci bàmmeelam di ko laaj bi munkar ak nakiir ñooy dikk aji faatu ji ci bàmmeelam ginnaaw bi ñu ko jébbalee boroomam ba noppi ñu koy laaj lan lañ koy laaj nag tawxiid maanaam naka la doon wéetalee boroomam ak kan la defoon ab yonentam ak ban téere la gëmoon doon ci attewoo ah, ko loolu le moom la laaj jaam bi li mu wéetalee boon boromam subhanahu wa ak kan moo nekkoon ab yeneentem ak ban téere la gëmoon mu ci attewoo ko defee nag li nga xam ne moom nga gëmoon ci àdduna buñ la laajee loolu ngay daal di mën a tontu ñu nekk ni ñaari jëmm yoo xamante ne nii naka lañuy dikkee nit ki ginnaaw bi nga xamante ne nii nit ki faatu na ba ñu jébbal ko boroomam ba nga xam ne ñi la doon denc ñi ngi lay won ginnaaw rek foofu sunu borom subhanahu wa taala da lay daal di delloo sa ruux ba nga xam ne ñi la doon denc sax bu ñuy dox dangay ngay dégg seen tànk ya na muy yëngoo soo demee ci tasawudu subaan Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ba nga ko fay leeral wal maytu min baadi sirafin yasmau xaraqana alihim isma isma toqaraan mu ne aji faatu ji ginnaaw bi nga xamante ne ni ñi ko doon denc wan nañ ko ginnaaw di dem rek suñu boroom da koy daal di delloo ruuxam bu ko defee day daal di dégg sax ña ko doon denc seen yëngu-yëngu daal ya mu muy yëngatoo ginnaaw biñ ko wanee ginnaaw bu boobaa nag la munkar ak nakiir daal di dikke bi nga xam ne ñaari jëmm la yu raglu yoo xam ne bu ñuy dugg ci bàmmeelu way way faatu ji su fekkente ni ni jaam boobule jaam bu texee di la wala iyaazu billah bu ñuy dugg ca ba bàmmeel ba dañuy mel ni ak dënn goo xam ne mooy xotti suuf si bu ko defee seen bët ya day mel ni euh, melax guy xel mate bu ko defé suñuy wax seen gemmiñ ya day melni ay ferñent mo ci genn bu ñuy laaj jambi waye waaye ju yu raglu googu suñ koy dikkee moy jambi nga xam jambu texé di la waye su jambu texé la mom duñ ko dañ ko dikkee ci geneen anam gu dut anam gi ci ci jëmm joo xam ne ju rafet lay doon kon yalla ñu yalla musal ci ñaari lo yoyu le ndax seen jëm yoyu ñepp leen ragal ba ci malaika yi sax amna na xamne dañu ragal jëm ragal ñaari malaika yoyu le ci ni ñi jël ni ñuy laajee jëmmu way taxé di ji yàlla nañu yalla saxal ci ngëm ba bu ñuy bis bu suñu roy di takaliko suñu jëm yi ki nga xamanteni nak moo moom mooy garder àjjana ki nga xamante ni mooy Malick moom moo di garder sawara mooy mm, mi tudd Malick moom mooy garder waaye Ridwaan itam mooy ki xam ne mooy garder àjjana malaayka mi ñuy wax Ridwaan mooy aljana kon ñoom ñëpp wax na ci ñun ñu gëm leen nañ gëm leen waaye itam am na ñoo xamante ni nii kat wax nañ kenn du leen laaj ci bàmmeel muy ñan ci li nga xamante ni moom la lenn ci borom xam-xam yi indi mooy yonente yi ak malaayika yi ak suhadaa yi mooy ñi nga xam ne dañoo faatu ci yoonu yàlla ak ñi nga xamante ni itam ñooy siddiixuuna yi siddiixuuna buñ ko waxee mooy ki nga xam ne gëm na gëm gu bo xamne egg na ci dayob yonent waye egg na ci kem ni ab yonent di gëmee waye nekut ab yonent ñooñu wax nañ kenn du len laaj ci bammel ak ki nga xamantene ni dafa ta xelam muy ko xamne dafa dof wax nañ itam bokku na ci ñi nga xamne kenn du len laaj ci bammel moy ki nga xamne dafa takko bis bu set muy guddigu jot muy surtout mulki muy tabaraka nga xamne dafa faatu ci ci am mbas wax nañ ne kenn du ko laacc ci bammel lol borom xam-xam yi indi nañ ko ak ki nga xamne dafa nekk ci febar daari jang ci febar ba sotul ikhlas ñetti yoon daari faatu ci febar ba koku wax nañ ne kenn du ko laacc ci bammel ak ki nga xamne itam du faatu dafa faatu ci bisu aljuma ak wala guddik wala ak ki nga xam ne dafa faatu itam ci guddik àjjuma ñoo ñëpp yeen lenn ci boroom xam-xam yi wax nañ ne kenn du leen laaj ci bàmmeel kon lii mooy liñ leen indiloon tey ci ngëm ci malaayika yi niñ war a gëmee malaayika yi ak fukk yi nga xam ne moom danga leen a war a gëm ci teqale xàmmee leen ràññee leen ak kenn ki nga xam ne lil am na loo xam ne liggéey boo xam ne moom la suñu borom subhanahu